axrijna min zulumaati lwahmi wa akrimna bi nuuri lfahmi waftax calayna bi maxrifati lcilmi wa xassin axlaaqana bilxilmi wa saxxil lana abwaaba fadlika wansur calayna qadaa'ina raxmatika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 di bég lool ci ni ngeen di toppe jotaay bi rawatina ñi nga xam ne dañuy xaar baax waaye rawatina fajaru dimanche yi nga xam ne dañuy waxtaane lu jëm ci wàllu ñaan di ndokkeel bu baax Alioune Badara Socé mi fanaan di ko masawu ci panaan mi di jaajëfal bu baax auditeurs am yi nga xam ne ñoo doon woote yépp di joxe seeni xalaat ci réew mi yal na yàlla barkeelal ñu te defal ñu réewum jàmm fajaru dimanche dañuy waxtaane ñaan te mooy li dox diggante suñuy diggante ak suñu borom subhanahu wa te waxoon naa la ñaan mooy jaamu yàlla ñaan mooy jaamu yàlla ndax bi ngay jaamu yàlla yaa ngi ñaan yàlla ndax dangay def loo xam ne yaa ngi ciy xaar ak payam kon jëf la waaye boo seetlu woon jëf ji da ko tudde ak fay waaye lum la ci jox dala koo may lum la ci jox rek dala koo may daanaka amoo ci dara ndax boo ko ne woon julli fay ma sama payug julli gi mu ne la bi ngay julli suuf si nga taxaw maa ko moom xaar ma defal la facture taxaw bi ngelaw li nga doon noyyi maako moom xaar ma defal la facture ngelaw li bi ngay sëgg di lem sa ndigg leeke siggi maa la ko defal ci sama kàttan bu génnee lam ci am lépp sa jëf ji jeex tàkk moo tax lum la ca defal ak lum la ca jox rek xéewalam la moo tax ñaan mooy jaamu yàlla suñu ay bis yee ñu génn te dégluwaatoon ko bi may jeexal jotaay bi dama tuddoon génn ñaan te mooy laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min azalimin ba ma ko waxee dama cee yemoon ndax bëgg ñu jàng ko ba mokk ndax bariwut ay baat yu néew la waaye ci ñaan yi gën a màgg la bokk ci ñaan yi ñi tuube yi ci gën a rëy la bokk ci ñaan yi ci nekk ci ay jafe-jafe te bëkkee génn yi ci gën a rëy ci la bokk bari na mbokk yu ñu woowaat yitte woo woon ko ma ne leen woon danañ ci ñëwaat ci beneen almisbaax boo xam ne ci lañ koy gën a yaatale ndax dama junjoon ñaan gi ngir ñu xooliwaat ko ñaan la goo xam ne ni nga xamante ne ñaari sunna yi yépp am njariñ biitim daa bokk ca yooya rëy lool jullit bi war koo yittewoo war caa bàyyi xel ci bu dégluwaatee xelam ak xolam ak ni nga xam ne noonu la koy waxe ndax bi mu ne laa ilaha illa anta waxoon naa la ci yi jiitu ne kii ñaan borom bi subhanahu wa taala da koy bàkk da koy kañ da koy delloo njukkal subhanaka ba tey ma ca kañ yaag bàkk ya waaye ñëw ci moom nit nag ne ko man de ab tooñkat laa loolu mooy li ngay dégg ci kaw muy man tuux bi mafhum bi nag mooy maa ngi sàkku sa njéggal maanaam tooñ gi ma nekkee wala jafe-jafe yi ma nekk yow mi nga xam ne subhaanaka yaa ma ci mën a génnee yow rek yaa ma ci mën a génnee bu ko defee mu génnee la ci ñaan la goo xam ne ci alquranul karim la nekk waaye dafa am xissa boo xam ne moom la àndal xissa bi yonent bu ñuy wax yunus seydina yunus alayhi salaam di kenn ci yonent yi nga xam ne yàlla moo leen yónni yónni woon ko ci aw nitam ngir mu gindi leen awale leen ci yoonu ñu jaamu ko moom yàlla te wéetal ko yunus woo nitam ñi woote bu yàgg woote bu yàgg di waaraati guddi di waaraati bëccëg waaye mbooloo mu néew ko wuyu mbooloo mu néew ñoo ko wuyu nga xam ne Yunus dem na ba découragé dem na ba découragé découragé googu nag moo ko yóbbeen xam nga benn sikka ngi noonu yow mi nga xam ne dangaa découragé jëlal ñaan gi kon danaa ci ñëw waaye jaaxle dikkal ko ndax wooteem bi daa yàgg te ñu ko wuy si dañoo néew yunus juum waaw yunus juum donte yonent la njuumteel yonent nga xam ne bu doon ci nitu kete du garaaw waaye yonent moom yonent la loo gën a jege yàlla euh, lam lay muñal gën a néew ndax fi mu la teg waratoo fee nekk di de ne am na koo xam ne saal bi mu toog daanaka wokkatu sax dootu ko def ndax barab bañ ko teg moo kawe moo tax am na yoo xam ne sañatu ko sañatu ta wax jot li ndox mi sañu tuta wokk boppam sañu tuta def yu bari waaye am na foo xam ne bu fa toogee bu bëggee sa xët sa xët bu bëggee ñandu sax génnee musuwaaram ci poosam ñandu defaat ci poosam ndax fi nga nekk tax fi nga nekk dalaa may nga def yooyu am na foo xam ne boo ko fa defee ku la gis danaan kii dafa doyee di xoolal li muy def te pourtant nit a ko def ci mbedd mi nga romb ko waaye doo ko wax dangaa doyee di ndax tolluwaay yee bokkut yonent moom fa mu nekk daa kawe moo tax wërta def yenn njuumte yi moom Yunus waa dëkk ba ne leen bu subaa wala tey ci ngoon suñ borom dana wàccee mbugal gannaaw damaa woote ngeen bañ maa gëm mu mel ne yàlla da ko naan yunus gaawtu nga de gaawtu nga de man xam nga yàlla moom keneen la moom ay mbiram losi gëm bokkut ak suñ bos ñun ñun nit buñ santee nit dara mu bañ buñ amee doole juñ ko mën a wone suñ doole dañ koy won ci saasi yàlla nag day santaane ak jaamu yàlla am ñu taxaw ne ko defuñu am ñu taxaw sax di yàq li mu li mu digle ci lu baax waaye du tee mu bàyyi leen ñuy noyyi ci ngelawam li mu jox leen i xéewal ñuy dawali oto mu jox leen i xéewal ñu ami kër am alal ci seen poos di dem ak a ñëw mu mel ne li ñuy def da ko neex te pourtant neexu ko waaye dañ koo mënta raw rek moo tax yàkkamtiwul bu dee nit moom ca saasa la lay won mooy kan moo tax léeg nga nit nit di bàkku naan daf maa xamul rek lay daf maa xamul rek yàlla moom loolu ko ci fekk moo tax bi Yunus meree gannaaw wax na leen ne leen suñ borom dana wàccee mbugal bu subaa te amu ci ndigalul boroomam borom bi subhaanahu wa taala daal di toog di ko seetaan gannaaw di wax ne leen tey ci dimanche ji bu 10 heures jotee te gëmu leen ma lu metti dana fi xew dimanche jot daa mel ne dëkk ba daa gën a neex sax Yunus nag xajatul ci dëkk bi nee nañ bu génnee ci mbedd mi fu mu jaaree ñu ne ko waa sa waay ana mbugal mi fu mu toll xam nga nit ñi dañoo mën a tooñ dañoo mën a mbalak bu doon tey la danga nga naan ñu koy def ci tiktok yeeg di ko def ci estati eh, whatsapp yeeg kenn ku nekk di ko ji ak di ko mokke Yunus nag xajatut ca dëkk ba kersa jàppati ko mu defaat leneen lu garaaw mooy mu dugg ca gaal fas yéenee génn dëkk ba te amaatul ndigalul boroomam ñaari yoona a ngoog tooñaange yi mu tooñ bi mu duggee ci gaal gi gaal gi dem ba ca digg géej ga la cay xew xew ca bañ jël ko sànni ko ca ndox ma borom bi ne ko kaso laa lay tëj kaso yàlla fépp kasoom la kum féexal nga nga féex waaye kum tegi jafe-jafe nga nekk sa biir kër ba pare mu mel ne kaso ci yow yàlla ñu teggil suñu suñuy jafe ak suñuy xat-xat am na koo xam ne li dëkk bi di yaatu yaatu daa xat ci moom ay xat-xat doo nga ko yóbbee ak i jafe-jafe yunus nag ci jafe-jafe yooyu li jëm moo tax borom bi subhaanahu wa taala def ñu sànni ko ca géej ga jën wa wann ko borom bi jox ndigal jën wi ne ko dama laa digal nga wann ko waaye digaluma la nga reesal ko bul ko saqami bul ko reesal dama ko pine yonent yàlla yunus boole lëndamu géej gi ak lëndamu biir jën wi waaw géej gi ak lëndamu biir jën wi ne ci tumuranke yu metti yooyu ne ci tumuranke yu metti yooyu géej gi lëndam këriis mu ne ci biir yunus xam ne caaxaan faaxee waaw jum juum lii kaso la ci la ma suñ borom tëj mu daal di tàmbali nag mu daal tàmbali nag laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimin laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimin laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimin laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimin rek moom Yunus ci biir jën wi suñ borom bàyyi ko fa rek ba mu yàgg yàlla ne bu dul woon baat yi ngay wax yow Yunus ci biir jën wi laa lay bàyyi ba yowmal xiyaam allahu akbar bu dul woon baat yi ngay wax la labitha fi batnihi ila yawmi yub'athun dama lay bàyyi ci biir jën wi ba yowmal xiyaam mooy doon sa bàmmeel waaye baat yi ngay sàbbaal xamatuma nu ma lay def waaw xamatuma ma lay def ndax nangu gi nga nangu sa tooñ gi dafa ëpp waaw ndax inni kuntu mina inni kuntu mina zalimin al eh, man ngaa wax ne ixtiraafu bi nadam la wal istixfaar wa takfiru ani zunub nit ki bi muy wax yàlla ne man ci tooñkat yi laa bokk rëccu la nangu bàkkaaram la ak ñaan jéggal ak tuub loolu la àndal borom bi subxanahu wa taala génnee nag ca jafe-jafe yooyee mu nekk ki nga xam ne dafa nekk ci jafe-jafe léeg-léeg daa am lu ko yóbbee jafe-jafe yi nattu la bu ko yàlla teg di xool ba xam mooy kan muñal rek walla def nga bàkkaar boo xam ne ëllëg yowmal xiyaam mën na laa tàbbal sawara suñ borom di la fóot fii. yow laa teel a teg say sanction fii mu tàmbalee metti ci yow fii muñal te tuub muñal te te ñaan moo tax suñ borom subhanahu wa moo wax ne bu woon ak baat yooyu yunus doon wax ma bàyyi ko ci biir jën wa ba yowmal xiyaam jafe-jafe boo mën a nekk nag aggut ci nekk ci biiru jën xanaa nekk ci biiru jën jën wi nekk ak yow ci biir géej ga ba ca ndett la àgg goo foofu te jaam bi àggoon na fa di wax baat yi borom bi subhanahu wa taala génnee ko fa kon nag jëlal waaw jëlal bu fi nekk di laaj ay lim di sonal sa bopp waaye xam nga fi teg njàqare tollu jëlal ñaan gi nga di ko ñaan tey teewlu sa borom subhanahu wa taala tey tuub say bàkkaar ak tooñaange yi nga ko def tey ñaan mu génnee la ci tey ñaan mu génnee la ci léegi tey nga génn ci ñaan la goo xam ne ngëneel yu ci nekk waaye ci teggi ay njàqare ak i xat-xat génn ci ay jafe-jafe ak i musiba waaye jàppandilal nit li nga xam ne moom la bëgg jàppandilal nit li nga xam ne moom la bëgg amul benn jafe-jafe yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam da daan julli ba sëlmal joxe ay e, e, e, jox ñaan ba noppi wax ne kuy xëy nanga ñaan nangam kuy xëy nanga ñaan nangam yow mi jullit yaa ko moom yaa ko moom la cay secret bokkut ak loolu la cay secret bokkut ak loolu loolu ña xam secret ya ña ngi ko xam waaye am na loo xam ne man ngaa bañ a àgg ca secret ya te am ko Cheikh Fadel Ka yàlla na ko yàlla yokku wér suñu wëlëree wee ci sebi xotaan dafa may wax ne ab jullit moom buy xëy ba wax ne bismillahi lladi la yadurru maa ismihi shay'un fil ardi wala fi sama wa huwa alim war naa xam ne am na kaaraange léegi yonent bi lool la jàngale nee na kuy xëy suba wax ko booy génn sa kër dara dara lor ba bëggee ngay dellu si waaw mucc nga ci lori nit mucc nga ci lori jinne lu bàyyi ko wut ci saa borom mënut ci yow dara léegi nag boo ko waxee ba noppi jëratut kon sotti am ndox jëratut jàpp ne nit ki dalay fexeel jëratut tiit ci yenn yi wax ko te dem te bàyyi xel sa bopp bu sam njàpp tojee jàppaatal booy dugg sa barabu liggéeyukaay jiital la sa tànku ndeyjoor yéeneel nit ñëpp jàmm waaye nag saxal ci di muslu seytaane tey wétali ko alquran mucc nga ku def loolu mucc nga ñaan gii di laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimin day yëkkati màggaayu borom bi subhanahu wa taala yëg-yëg buy wone ni nit ki da koo jege ak jaar ci yoon wi nga xam ne mooy yoonu gëm borom bi subhanahu wa ndax jàmbi bi da koy tudd da koy sant day lim xéewalam mi nga xamante ne mënta jeex waaye mel na ku koy ñaan mu dolli ko mel na ku koy ñaan mu dolli ko moo tax liñ ci mën a tënk lu yaatu la ndax la ca nekk dafa bari la ca nekk dafa bari addua bihi takiid alal istixfaar yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ku saxoo def istixfaar jaala llahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dayqin maxraja wa razaqahu min xaytu laa yactadib koo xam ne dangaa saxoo di def istixfaar mooy astaxfirullah astaxfirullah astaxfirullah nga saxal ko borom bi subxanahu wa taala dana defal bépp njàqare boo mës a dugg wala bu mën a doon nga am ca solution waaye xat-xat yi nga nekk yépp borom bi subxanahu wa taala dana defal xéewal te it dana yokk sa wërsëg kon nanga ko saxoo astaxfirullah astaxfirullah bu dee dangaa bëggub lim. quatre cent cinquante suba quatre cent cinquante ngoon mooy lim bi nga xam ne mën naa gën a tuuti wala mu gën a diggu doomu ndax am na yu ko ëpp am na ñoo xam ne lim ba la ñuy jël baat ba ak ya nga xam ne moo ci aju yonent yàlla noox moo waxoon nitam ñe ne leen wax leen astaghfirullah bu ngeen bëggee am bu ngeen bëggee seen problème yi saafaraw bu ngeen bëggee problème yi saafaraw wax leen astaghfirullah fa qultu astaghfiru rabbakum la wax innahu kaana xafaara yursili samaa alaykum midraara wa yumdidkum bi amwaalin wa baniin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum jeex na bu ngeen ko waxee bu dee da ngeen ñàkkoon wërsëg léegi ngeen tàmbali koo am yursili samaa alaykum midraara boo bëggee doom wala njaboot gu barkeel boo ko saxoota di ko ñaan yàlla dana la ko may insha allah waaye dana la defal wërsëg woo xam ne doo ko fooge wa rasaxahu min xaytu laa yaxtasib yonent bi alayhi salaatu wasalaam mi yàlla baal bàkkaaram yépp dafa giñ ne wallaahi la yonent yàlla muhammad wax wallaahi maa ngi giñ ci yàlla ne inni man yonent yàlla muhammad la astaxfirullaha wa atubu ilayhi fil yawmi aksara min sabina marra nee na bis jéggulu sama boroom def ci astaxfirullah te di ko tuubal lu ëpp juróom-ñaar fukki yoon lu ëpp juróom fukki yoon danaa ko tuubal sama boroom ci bis bi kon ñaan ak jéggulu boroom bi subhaanahu wa lu am solo la moo tax laa ilaha illa anta subhaanaka inni kuntu min az mooy suñu ñaanu weer wi mooy suñu ñaanu jeexitalu atum 2020 boole ko ci sa kàggu boole ko ci sa kàggu boole ko ci say bagaas yaako moom jullit yee ko moom jullit yee ko moom waaw bu doon eh, ca mag ña buñ la joxee ab dog ba noppi dañ lay wax nag ne la dangay dangay da ngay weexal nag dangay weexal léeg ñun la danga koy jaayante nag nangam nga fi bàyyi <laughs> nangam nga fi bàyyi waaye eh, mi ngi noonu bu ko defee jël ko boole ko ci say ñaan boole ko ci bagage yi nga xam ne moom nga yor ndax ñaan li ci nekk ci aw yiw dafa bari lool ay alxuraan yu baree baree baree baree bari ñëw na ci ay alxuraan yu baree bari ñëw na ci waxoon naa la ko borom bi nee na wa isa saalaka ibaadi anni fa inni xarib ujibu daawata daai ida daan falyastajibu lii wal yuminu bi laallahum yarsudun yàlla nee na saa yu ma sama jaam ñi wooyee ma wuyu leen buñ ma laajee rek maa ngi nii ñaan boo demee ci alquranul karim suñ boroom dafa ñuy nettali jabari imran ja ñu daan ko wax na moo jur mariyam dafa nisër dafa dem ba nekk mag te amul doom muy ñaan boromam mu may ko doom bi mu ëmbee xoolal ñaan mu ne yàlla indi inni nazartu laka maa fi batni muharrara fa taqabbal minni innaka anta samiul alim yàlla maa ngi lay ñaan nga defal ma kii ma ëmb ci sama biir bi mu doon koo xam ne ku gore lay doon mu doon koo xam ne ab jaamukata ab jaamukatu yàlla lay doon boo xam ne bu juddoo ma may ko yàlla may ko jaamukaayu yàlla bi mu di ko di ko taxawu xoolal ñaan nga xam ne jigéen dana ëmb sax dogu ñaan boroomam subhaanahu wa taala ci kim ëmb bu màggee yàlla defal ma ko mu doon nangam mu doon nangam mu doon nangam mu doon nangam suñ borom defal ko ko toppal aaya ji ñu dem borom bi nee na ba mu amee doom mu nekk jigéen dafa jaaxle ndax daa yaakaaroon ne li muy santaane góor ko man yàlla ne ko góor ak jigéen nuroowuñ waaye xam naa li nga ñaan waaye jigéen laa la may ndax jigéen ji daa am rol bu mu war a def foofa borom bi da koo mayaale ko ne ko danaa ko musal ci saytaane ak i sëtam waaye tudde ko Maryam Maryama moomu moo jur yonent yàlla Isa waaw Maryama moo jur yonent yàlla bi yàlla bëggee indi nit ko amut baay jigéen ñi ne ci àdduna ñëpp nekk fi ndaw si nga xam ne mooy mariyam yaayam ëmboon ko di ñaan boroom bi mu musal ko ci lépp moom la tànn jaarale ci moom yonent yàlla Isa alayhi salaam ne ko nag yaa Maryam inna allaha astafaaki wa tahharaki wastafaaki ala nisaa'il aalamiin yaa maryamu uqnutii li rabbik wasjudi warkaci maa raakiin allahu akbar yàlla nee na ko maryama maa la tànn yaa gën ci jigéen ñi àdduna bi ñi nga jamonoonteel yaa ci gën kon maryama déggal ma déggal ma moo tax bañ ko yaree ba maryama ne ca min barba Sakariya saa yu fa ñëwee gis ko maryama yor lu ko joxul woon Sakariya bi muy ñaan boroomam mu may ko doom fekk na mu am téeméeri at fekk na moo am téeméeri at waaye ba mu ñëwee appartement Mariama fekk Mariama yor mango yi heure bii ju ñor xomm di lekk te ñi ci jamonoy xaal ak orange mu ne ko Mariama foo jëlee lii foo jëlee sa xeeti tàndarma yu tooy yi ànd ak i caram mu ne ko yàllaa ma ko jox Sakariya ne abo ah yàlla mi man loolu war na maa mën a may doom war na maa mën a may doom moo tax hunaalika hunaalika foofee daa zakariya rabbahu fala zakariya yëkkatee loxoom ñaan boroomam tàyyeelut moo tax yow bul fi nekk naan euh, sëy naa juróomi at awma doom ñaanlu naa ba sonn ba léegi ñaanal ñaanal jëlal ci sa ara alal saraxe def tawassul def def def tawassul waaw subayda moo nekkoon euh, soxna Haaruna Rachid ba mu yéexee am doom tey def nisër dafa waxoon ne bu ko borom bi mayee doom diggante Baxdaad ba Makka dana fi def ay teen yoo xam ne ñii aji buñ fa jaaree dañuy naan dige ba rëy na dël ba rëy na waaye borom bi subhaanahu wa taala da koo may doom muy al amin yow ñaanal niseral loo xam ne boo ko amee def ko waaye génneel sa alal joxe te yàlla tax ci ko yaakaar ñaanam ba noppi ne ko ñaanal ma hunaalika daa zakariya rabba qaala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba innaka samiu duaa Sakariya ba muy ñaan doom lii la waxoon boroomam da ko wax ne ko rabbi yàlla hëblii may ma min la dun ka zurriyatan tayyiba may ma doom yow yàlla dégg nga li may ñaan dégg nga li may ñaan waaw kon nag may ma doom ñaan man na lu ne laa illa anta subhanaka inni kuntu min azalimin borom bi nee na kan moo leen di musal ci lëndëm lëndëmi jéeri ji ak lëndëm lëndëmi géej gi moom moom yàlla moo ñu ciy musal moo tax mu ne kon ñaan leen ma tad'uunahu tad'uunahu ñaan leen ma tadarruan wa xufya la in anjaynaa min haadihi lanakuunanna min ash-shaakirin waaye qul illahu yunjiikum minha wa min kulli karbin summa antum tushrikuun yàlla nee na jafe-jafe bu ngeen nekk bu ngeen ma ñaanee ma génnee leen ci waaye ñu bari ci yéen nag buñ ma ñaanee ba ma fajal leen seen aajo ñu tàmbulee bokkaale duñ ma sant duñ ma sant keneen la sant wala leneen la sant waaye man dañ ma fiy bàyyi duñ ma sant duñ ma faale tàmbali sewal waaw ak di ma saboote <laughs> ak di ma saboote bokkaale moom daal bu mettee ñu ne yàllaa ci des ah lii de moom yàllaa ci des sallaaw moo ci mas a des de moo ci mas a des de léeg sax bu nit faatoo dañ ñaan yàlla moom na ko nga xam ne da koy door a moom waaye bi muy dund moom lu baree ko moomoon léegi nag kenn bëggatu koo moom yàlla doo nga la bëgg moom ñu ne yàllaa ko moom kon jébbal nañ ko boroomam hmm. léegi nag nañ teel a jébbalu ci suñ borom ba bu ñuy jëbbal suñ borom fekkoon ñu fa yal nañ yàlla boole sàmm yal yàlla boole nangul yal nañ yàlla boole aar li ma leen digoon ci laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina zalimin jéem naa ci indi sama kemtalaayal kattan di baalu àq bu baax ñëpp léeg-léeg ma wax ñaan ba noppi joxe sama numéro ndax bëggu ko envoyé nit ñi ci whatsapp bi waaye da ngay seetlu ne ni nga ko bëggee doo ko mane noonu ndax yi ci aju yëpp ci ak ñàkk jekku jamono toogaay du am boobaa day indi ay jafe looloo tax maa ngi ciy jégalu bu baax a baax xam naa ni ñuy def rek mooy buñ ci waajal rek bu ñëwee def ko suñ kemtulaayal kàttan ci waxtaan wi ndax day am ñooñ buñ envoyé ñaari yoon message boo leen tontuwut ñu mer léeg ñu wax wax joo xam ne mën na laa bañ a neex donte du mën a xari waaye mën naa yàq ay diggante nit mën na cee mere sax ba bàyyi déglu émission bi te message bu mu la envoyé te tontu woo ko doo nga tax te lool du woon jubluwaay bi ñoo ngi jéggalu ñëpp nag ngir yàlla gémmi suñu borom subhanahu wa taala ñoo ngi leen di baalu àq yéen ñëpp yal nañu yàlla boole jéggal yal yàlla boole nangul yal nañu yàlla boole sàmm yal yàlla boole aar yal nañu yàlla teggil suñuy njàqare fi dunya yal nañu yàlla teggil suñuy njàqare fil axira yal na yàlla defal ñu xéewal gu doy bañ man koo jaamu